li nu aye nag fa tabarakallah moy conférence religieuse bu mak bo xamni ki ko responsable moral groupement sop nabi di fadila cheikh al oustaz Alioune mbay euh, jambarou l'islam bobu ki nga xamni moy liguey katou sayduna muhammad à travers sop nabi waaye à travers mbooleem dara yimu sos samp ko ci biir réew mi fa tabarakallahu ci gox yu fasantikoo yi bu ko defee fa tabarakallahu bis bu mag bi ñu dëgmal mooy dimanche le 10 décembre bii di ñëw incha allahu rabbi ñu fas ko yéen a amal fii ci biir Dalifort mu ànd koog fa tabaarakallahu ay nawleem ànd koog ay mbokkam ak i soppam ak i xar soppeem ak i xaritam ku ci mel ni oustaz Iran ak oustaz Alioune Sall fa tabaarakallahu ak mbooleem fa tabaarakallahu jigéen ñu baax ñii ci ginnaawam ànd ak moom di liggéeyal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabaarakallahu bu ko defee dañuy jox kenn ci ñoom présidente wala kum ci jox ndigal rek mu wax ci turu. Eh, sop na bi yëpp fa tabaarakallaahu soxna Fatou Diouf bismillah kaddu gango aouzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbok adina mbok juliti dañu dañoo dënmal bis bu reuy ñu diko and ak suñu responsable moral oustaz alun bay diko ñaanal yalla yal nako yalla deugural ñuy wax ci suñu turu president Adja ndey Marème sar yalla na yalla oyfal yan bi ci mom ñu nak bis bu fa tabarakallah muy bisu lislaam ñu ciy woote jullit yëpp waa sopp Seydina Mohamed muy le diis décembre ñuy woo àddina bi yëpp Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa lal na lépp jeexal na lépp fa tabarakallah ñu ngi leen woo ci bis bi muy dimanche di woo waa Dalifort di woo jigéeni Dalifort yi di woo imaam yi fi nekk chef de quartier doomu jullitu yàlla yëpp ñi ngi leen woo fii ci Dalifort di woo nag fukki section yi ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo ëmb sopp Seydina Mohamed ñu wax leen nañ teel a ñëw dalal seeni gan bu ñu xëyee dinañu wàcce kaamin bu ñu wàccee kaamin ba pare dinañ togg ay añ bu ñu toggee añ yi ba pare dinañu door ak suñuy kilifa di ñaanal nag oustaz Alioune Mbaye yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na lal bis bi ci jàmm ñu jeexal kook alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa waaw fa allah jërëjëf yaay Faty Diouf mi doon wax ci turu présidente Adja Ndeye madame sar jërëjëf kaddu yu rafet na kon bu ko defee fa allah dañuy jël kaddu gi jébbal ko sunu responsable moral Fadila Cheikh al oustaz Alioune Mbaye fa allah oustaz ñu jox la kaddu gi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ayyuhal mushahidun alkiram asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki tedd yu jàkkaarloo ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balu ak te di leen balu ak di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla boole jégal alhamdulilah jërëjëf oustaz Juk Diouk jërëjëf Adja Fatou Diouf ci turu présidente soxna Ndeye marem ak ci turu mouvement bi ñëpp seen kàddu yu rafet yi nga xam ne jot ngeen ko yëkkati ci turu coordonnateur rek mboolem ñi nga xam ne ñooy responsable yi sopp na bi alayhi salatu wasalaam euh, su ngeen gisee nga woote bi comme ni mbokk yi waxee rek loolu la dañu bëgg di woote jéemale nit ñi ci yàlla ginnaaw ba nga xamante ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wax ni ku jot na nga jottali ballighu anni walaw aaya ku jot na nga jottali yàlla boole nu ñu ay bokki julit ñuy àndandoo ñu àndandoo jëm ci sayyidina Muhammad sallallahu taala wa sallam kon am na lu lu tax ñun ñu ëpp doole malaaka yi ba ñuy sujootal mooy ruux gi nekk ci ñun te bokk ci yàlla te du dee bu ñu ko roccee ci yow nga daal di dee bu ñu ko roccul ci yow nga daal di dund loolu nag mooy tax nga mat jaam yàlla ci kaw suuf loolu nag bu yàqoo bu nexé ba daw jëm ci yalla di top yaram yaram mi nga xamante matière lay jaamu bëgg-bëgg aduna lay top, bu ruux démé ba top ci ginaaw lo rek mu ngi melni ne sareet bu jitu fas blocage lay indi total yoy nak liko mëna dindi moy consultation gratuite moy wa ay oustaz yi boroomi xam-xam imam yi yi diine yi ñu delo nit ñi ci yalla defaraat leen ba seen ruux yi sel lolo waral euh, ñu wote wote yu melni yi ak yeneen ak yeneen ñu ngi jógee ci màggal gi ñu ngi jóge ci gàmm gi ñu ngi waajalaat yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yëpp mag ñi dañu ko teel xam di ci woote bu ñu ñëpp ñëwee ba toog ñu jàngalaat ñu jikko yonent bi sallallahu taala wa sallam pourtant nag ak doo daan yi nekk suñu kanam yëpp gis nga léeg ñu ne ustaas yi dañuy dóor rek ku fu woote woote bi diina ñuy xoolal day dóor de da bëgg xaalis de au ñu xool la ci ginnaaw loola yooyu ci feebar yi nga xamante ne moo ñu gàllankoor ci la ñu bokk mais nag ku bañ ku la tudd wala ku bañ ku la taqal wala ku bañ ku la dara booy boo nga nelawi dañu ànd ak accusation yi sonyi ak diñ yi yépp di ko affronter di minimum li nga xamante ne mën nañu and ak ñom jëm ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam waral mouvement sop sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ci fukki section yi ak juroom ñet ak yal na ko gëna wessu seen présidente yépp ñu ngi ni tok seen représentante yépp ñu ngi fi tok ñu fassiyena and ak ñun ci bis bi wo sunu xarit sunu mbokk sunu nawle sunu al hadji Ibrahima Badiane di Iran Ndaw and ak Oustaz aliou Sall ak Imam Omar sek ànd ceeg ñoom moom Maodo Faye ñoom Mbacke Sylla ànd ceeg ñoom imam Moustapha Niang ànd ceeg ñoom Chérif Mahfouz Aïdara Oustaz Serigne Alioune Sall Safietou ànd ci ak imam Ahmed Diallo ak Moudemba Sarr ak mag ñi nga xamante ni ñooy nekk ci koñ yi nga xamante ni fa la suñu section yi nekk seen i imam seen i homme de base nit yi diine fa nekk yëpp ñoo àndante ak ñoom ñoo fii ñu déglu Iran Ndao mu traité ñu thème bi buñ ca paree ñaan demaat ba ba déwén di ñu gërëm nag suñu sponsor yeeg suñu marraine yeeg suñu parraine yëpp di leen wax ni ngeen teel a ñëw tabaarakallaahu li ma ciy dolliwaat rek te ma fàtte yoon ko mooy imaam yi dalifoor yi ak nit yi dalifoor yi nga xam ne ñoo fi nekk daayir yi fi nekk ñoom ñëpp maa ngi leen ciy woo xam nga ñun dañuy xool integration ak dialogue islamo chrétien mboolem association chrétien yi nga xamante ne ñu nga nekk CDE ak yi nekk fii dalifoor ñoom ñëpp jox nañ leen ay carte invité nañ leen ci koo kuy invité nag koo bokkulul diine yaakaar naan tarixa du tax ñuy wax kon ñu ngi woo mu tijaan xaadir laayeen bàyyi laay ñëpp ko xamante ni rek yaa ngi wax si doon laa ilaaha illa ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ne ñu yéen ñoo ko bokk jàmm la ñu wax suñuy mag loolu la ñu jàngal te loolu ñu jéem a yar te loolu ñu jéem a suuxal ba kër ñu fiy jógee yàlla na yeex Mouhamed nga baal ma loolu rek laa doon wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. la ilaha illa allah محمد رسول الله محمد رسول الله عليه سلام الله عليه سلام الله خير الخلق عند الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه صاحب العز والجاه نبيا ورسولا نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم مولاي